salaamaaleykum wa rahmatulah nuyoo bëggee kullu patriote sama vidéo bi Bougane Gueye Dany yow yaa ko moom borom Sen TV fii ku fi fàtte sa démb ñu ñëw fàttali la ko ma bëgg la dénk ñaar ne la Ousmane Sonko garmi la bete bete la moom du përëm or la jamaa la yow përëm moo la ëpp valeur fii kuñ fi fàttali sa démb nga mer sa démb jagul Bougane Gueye du junne ba nga dëkk ca ndar nawloo wuñ la defuñu la référence yow ndar ga nga dëkk juddoo fa sax amoo fa base politique te ndar tey ji buñ ko doon xaaj jox Ousmane Sonko wàllam tax Ousmane Sonko nag rayante na ba dëkk ba mu dëkk mu am fa base dem élection gañe mairie ba kon kooku bu taxawee bàkku ne sama dëkk maa ko moom dinañ xam ne moom moom Casamance yow ndar ga nga juddoo yaroo fa amoo fa tus ma fàttali la sa démb nag ba ngay animer ci rajo Golbel Diagne ba ca Ndar yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu fekke wuñu ko de waaye na ku diglu dégg commerçant bi la daan abal jiin bi ngay sol su ma neexee ne la tur sàngam la waaye nag bëgguma tooñ moo tax duma tudd benn tur waaye boo daan baali dangay abbu jiin benn commerçant boo dégloo sama message bii danga xam kan laa bëgg a wax ndax xam nga ko man xam naa ko mu lay abal jiin wa morsem dal ñoo daan jappalé di la temir témèr ak ñaar témèr ta tay da nga leena faté tay bo duggé ndar suñu lay fatali sa démb sax da ngay mer ana sa gëwelu judd ba nga xamni bo duggé ndar mu bëgg la fatali sa démb da nga koy mere ña nga daan àndal démb leen ndax da nga am ay xarit yu bees bi ci top moy xaalis bi ngay damo señ Mbàkke soxna lo mayu lako du ak ñaana lako may fa ko jëlé xam nañ ko nak tamanees na lako wax nak bu lew la Ousmane Sonko di mbubboo di ñafanté di rayanté ba moom réew mi ci lu lew waaye du mystique ba ca topp mooy junne ja nga xamante ne dem nga ci nit mu ne la joxal nangam junne sangam mu may la alal loolu dégg nañ ko nga dem France ñëw indi xaalis ñëw di ñu waaj a lekk bugaan ngay doo pepp doo tus soo fàtte sa démb nag man maay ñëw fàttali la ko te sama vidéo bi maa ngi ñaan ci darajey rasulillahi bépp patriote na ko partagé ba mu egg ci bugaan ngay dali mu xam ne ndar ruq junne ba mu dëkk ca ndar xam nañ kan mooy Bougane Gueye Bougane Gueye ku judd ci alal ak ku alal dab yomb nañoo xàmmee Ousmane Sonko dafa regg ci alal judd ci alal alal dëbb ko yow mi nga xam ne alal dalaa dab nag mën nga koy koylu Ousmane Sonko amul télé amul rajo waaye réseaux sociaux yi moo ko téye lu mu fi wax mooy am lu fi waxut amu fi ndax moo ko poñe amee fayul kenn fukki dërëm déggoo ma te lu mu soxla nit waxal ko ko tey balaa jant besoo mu tisaaroo kon demal fooy réseaux sociaux yi Ousmane Sonko mooy borom dama réglé fi nga jëlee sa xaalis bi te bàyyi sëñ Mbàkke Bougane Gueye mel ne Ousmane Sonko yombul de ndax Ousmane Sonko ñafe na ab dëkkam ba doon fa maire ñafe na dëkk ba mu juddoo yaroo fa dégg fa baax ba tekki fa dara yow ndar gi nga dëkk ruq junne ba nga juddoo màgge fa yaroo fa dégg fa baax aw ben carte d'identité sax amoko fa ndax bu ñe diw baax na ñu ne ay mbokk mako wax bugaan ngay ñew Dakar gi di def say dugg-dugg ak say genn genn ña nga àndal loon ba dem junne and ak ñom ba dem jël lo junne laaj la dara li ngay limay wax diglu ko bu baax ba junne am lum la laaj nga yëkëti ko nga dem jox ko ji jox la xaaliss nga dem dem lu France ñew indi ay millions Bougane Gueye mi ngi tege liste baa ngi tege ndar gee nga dëkk boo fa defoon dara wala nga tekki fa dara wala nga gëm fa sa bopp kon waa ndar jox la bopp te ndar ku ne xam na ne ba fa Seydina Ousmane ko demee mel ne ne toq su bënn bu saañ ba réer te yow doonoo dara ndar kon Seydina Ousmane gën na law demin waa gëm sa bopp nag defuñu dara ci réseaux sociaux xam nga lu fekk lu tax defuñu fi dara muy fexeel ba yow mi nga xam ne yaay seen njiit duñ la tuumaal da ngeen doon xeex Ousmane Sonko di fekk ngandum fenkat ngandum defaya nga ànd ak moom di xeex Ousmane Sonko ba tuuma fekk la ci gaw ma nag ndax la taqal Ousmane Sonko mën na la taqal ndax yéen a dooleel fenkat kon lu ngeen ci góobe gar leen ko kon dama ni weddi tuuma dañ ne du ragal waaye setal sab der la kon bala la kenn weddil tuuma yow ya wara genn tok weddil sa bop tuuma usman Sonko mom goor pire la ndax nak ban ko tumale ñepp ne mo def la deful mom genn na taxaw wax lam fa wuti kon koku goor la koku or la jama la garmi la koku ñafante ci rew mi ku goor deug di ñafante ci rew mi ba goor ñi ba góori rew mi nako yawa muy delu di ñafante ci goor ci rew mi di fayit ba jigen ñi na yawa waye muy delu di fayit ba aduna yépp ne ko yow a kooku mooy góor dëgg su ko waxee ñu gëm ko tuuma nag yàgg na fi ndax fii gaa yu baax yépp tuumaal nañ leen te ki taxawoon tuumaal Ousmane Sonko moo taxawaat dindi tuumay Ousmane Sonko kon ku ne xam ne Ousmane Sonko tëqewu ca laalewu ca Bougane Gueye dama ne xamal yow yaay kan ndax man coalition gëmadi sa bopp laa leen laa la ndax bo gëmoon sa bopp kon ndar ga nga dëkk gëm la te ndar gëmu la ruq junne ba nga dëkk ca ndar juddoo fa yaroo fa dossier laa fa téye baal nit day fonk géwélu juddoom lu tax nga fonk sa géwélu juddu ba nga xam ne moo la daan àndal ba ngay animé ci ca rajo mu lay tàgg ak gërëm léegi boo demee ndar bu la dee wax di la fàttali sa démb sax da ngay mer yow amuloo wax ndax Adji Sarr nee na dangaa xeeñ ndax xaalisu jooni jooni yi nga dajale génne ko doog a mën a yorum réew yow Macky Sall xam na lu tax lissi bu ñëw mu ne doo bokk parrainage yi wër nga réew mépp doo def say parrainage ñu ne la bokk ñi nga séqaloon xaalisu jooni jooni porté nañ la pelante fu ne nga def say débat def say yëg ak say wàcc kenn mënu ci jot fukki dërëm kuy lekk lu lewut mënoo yorem réew soo fayee jooni jooni yooyu soo ko delloo seen borom mën a yor réew bi ci topp maa ngi jéggulu ndax bëggumaa fen eh, vidéo bi ma def léegi wax na ne la sa géwalu juddu du sa géwalu juddu sa xarit ba yoroon salon xam nga am na xarit boo xamante ne sa xarit la woon ci seen ruq junne yoroon salon nekk sa jigéen nga xamne lo musa mus buntu sa moom ngay dem waxtan ak mom wala nga dis ko ko keroog ba ngay ngenté ji dom duma ca egg nak wax ju egg dafa ko mom ba ngay ngenté ji dom di sa dom mo la ko li won xaritam xaritam xaritam mo nek geewal geewal pour don la tag sa xaritam bobu la fekk Dakar ñew ni la dama bëgg liggéey te awma liggéey bugaan ngay nga dindi 100000 francs jox ko ne ko demal ndax bëggoo mu toog sa télé di la fàttali sa démb bugaan ngay génneel xaalisu jooni jooni jàmbur bi nga lekk dégg nga ba pare doog a laajum réew réewum Sénégal mi Ousmane Sonko indi na fi ay ay ay règlement de fii ku fi laal alali sàcc mënatoo yor réew mi loolu moom Sénégal sax Ousmane Sonko sax du moom maanaam Sénégal ñoo ko décidé fii ku fi yorati ku fi bëgg a nekkati président dinañ xool sa passé sa avant ak sa après soo fekkee mës ngaa lekk dërëm bu lewut réew mi moom léegi dañ la koy interdit dootoo bokk <laughs> yow am yow Macky Sall ndekete xam na li tax doo bokk ci ci ci ci élection yi xam na li tax parrainage si li nga daj fu de nga dugg fa Macky Sall ne la mënoo bokk xam nga Macky Sall moom koobale yéen a yem ndax daa dox ba dajal yéen ñaar kon xam nga ne xamante ngeen génne lu li nga lekk doog a mën a laajum réew réew mi kuy lekk alali riba doo yor réew mi Bougane Gueye force ñu fàttali la sa démb sama dernière vidéo na mi nii duma la lalat duma la tuddaat ndax na la lima la bëgg wax ba paré ni ma ko sentiré laa ko wax té lima la wax ni dëgg gu wét yëng la ko yaakaar ne nag moo jox information bi moma ko jox dama la tuddali tour dégg nga bul japp né nak say xarit non non waye nak mën nañoo yey sax ndax say xarit dañ daan and ak yow dila may témir ak dila may 1000 francs ba nga jéké nga won len ginnaw dunné jox na la de waye xaalisu joni joni bi génné ko bugaan gay dali jox ko seeni borom dugg nañ fu ne porté nañ la pelante lu ne daj nañ ko mënuñu ca jot Bougane Gueye baal Tyrian moo tax da nga yàgg xeeñ dax dax wala niw lan la Adji Sarr wax sax maa ngi koy laaj ci commentaire yi dax wala niw laal leen ko ci commentaire yi ñu ñoqali ca kaw